bi mu lay tëjalee mooy dëkk bi ñu ne ku sàcc dañ lay rey ñu jàpp trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille sàcc ñoom ñëpp ñu war leen a reeti nag ñu woo sàcc bi si njëkk da ko eh kaay ñu tëral ko das bi xeet xeet xeet da ko yow tudd yow mhm. mu ne man mhm. xaadim rasul laa tudd ñu ko xaadim rasul nga tudd ñu ko waaw ñu ne ñu ne ku si topp ñu ne pël bi ñu woo pël bi pël bi ñëw ñu tëral ko daas baaga bi xeet xeet noo tudd yow mu ne man comme di rek yoro rasool <laughs> yoro rasool xam nga loolu noonu man man dama dama leen ciy nettali loo xamante ni man maa ko fekkee woon yaa ko fekkee at 1967 fii nii si Léopold Sédar Senghor benn match bu rëy moo fa amoon ndeysaan diggante Pël Fuuta yi ak ñi nga xamante ni mooy waa senegal ñu football match bu métti match boo xamante ni dafa métti nga dégg supporteru Sénégal yi naan sa lii sa lii sa ma ci bala yaaya ñëw gars yi di ko wëy di ko wëy di di wëy di wëy ñu toog ba ci yàgg rek bis bokkaande neem si yàlla rek dugal bam pël fuuta yi loolu naqari leen pël fuuta yi ñoom ñu jug yàgg barki rasu pël si boppam ñoom ñu jug toom uh-huh. bi nga xamante ne waa Sénégal yi ñu ngi koy wëy ñoo it ñu bëgg a wëy li ni mel ah, naan ko sa dung sa dung ne okkam nee na baaba aari do <laughs> ay waay këdum kadung kadung ne comme nee na baaba aari doo yebul foofu yow ni nga garaawee